remarqué ngeen ko monsieur Ayib Daffé honorable député euh, dafa ñëw mu indi déposer caution euh, candidat Ousmane Sonko bi mu ñëwee euh, du indi na chèque bi na moy mandataire candidat Ousmane Sonko bi mu démé suñu service yi dañu vérifier ndax Ousmane Sonko mëna déposer wala dette. biñu xolé la liste des personnes ñi nga xamné ñom lañu autoriser ñu jël parrainage gisuñu ci trop Ousmane Sonko loolu moo tax ñu aussi ñu huissier nako ko dellowaatal monsieur Ayib Dafé chegu Ousmane Sonko euh, chèque bi mu déposé euh, notifié ko ne Ousmane Sonko kat pour le moment mënul déposer caution à la caisse de dépôt et consignation loolu moo tax joxuñu ko attestation quittance de dépôt lañ ko joxoon donc biñu vérifier euh, la procédure mooy bëgguñu ku ñëw déposer xaliss dana jox ben quittance maintenant l'attestation définitive bu ñu vérifié lañ da kay jox mais bu ñu donc ñu xamné ki kii waru mën déposer

Nous vérifions vérifié ñu liste de parrainage donc vous nous le le moi je vous ko vérification auprès de la. vérification vérification sur la liste. Mhm. Euh, des gens qui ont le qui ont de parrainage. service technique direction des élections. Nous, envoyé normalement processus direction des élections voilà la liste des personnes éligibles ñi nga xam attestation de dépôt donc ku ñëw ñu jox la sa mais bu ñu vérifier sur les listes nous gis nañ que monsieur Sonko nekkul si liste ñi war a le parrainage nous delloo ko euh, déposé